day ñëw ci beneen beneen leneen lu ñu gis euh, géejawaay ñu gëjuñ ko gis trop mu Balla seen école de lutte Balla bi mu nekkoon comment reprendre ay entraînement am. la dégguma bala ñu naan maa ko wax dégguma la waxaat ko ma dégg. non loolu gis nga vidéo bi xanaa bala Gaye ñëw na ci commencé woon na entraînement ci école de lutte Balla Gaye. waaw numéro un gis nga na mu feese. waaw gis nga na mu feese. ak i booy. Mhm. kon li ma la doon wax naa la bala Gaye bu contacté ñëpp xam ko mi ngi nii. waaw kon waxal ni Sénégal Balla Gaye ñëwaat na si école bi. Mhm. waaw kon ñu sant ko yàlla di ko félicité nag di ko balu ak te te xoolal lu ne faan kenn du ko jeex sama téléphone a ngi nii moom mu xamal ne ko man chaque jour maa ngi koy suivre moom Balla pour mu xam ne chaque jour maa ngi koy suivre parce que dara du umpe mën naa faa baña dem de mais mën na maa jox li ma am bëgg lépp léegi lii neexul waxal ñu yëg ni contact si na neexul xoolal xoolal ni mu feesee xoolal xoolal xoolal rek xoolal li nit ñi ñëwee xoolal lii moo lay wax ni la Sénégal. ñun ñoo ko bokk quoi buñ ko xas man xasuma Balla waxuma ko lu ñaaw mais lii dafa neex tey di nga gis benn booy bu contact ak Balla yaa ngi dégg daan Balla rek wala mu force jël bu yàgg rek bu demee koñam da koy défilé loolu plaisir la. pour école bi pour euh, pour xale yi nekk si école bi. waaw pour xale yi. waaw yokkute la. Mhm. pour parce que Balla Gaye na si kenn du daw. te école bi day am day am seetaan si te bu am contact bu amee seetaan kenn du triser. parce que doo bëgg sa ñëw ñu lay daanaka daanaat yow mbër mi da ngay contact bu baax kon Balla loolu la war a xam ne làmb mi li muy wax bopp la quoi mais du ay saboté wala leneen parce que Balla xam na teraanga ba pare. Mhm. Balla même bu ma defalul teraanga. Mhm. defal na keneen teraanga ku ma dendal. mais man tamit même bu ma ko dee supporté tamit tey tey nungu defet yi moom dama see war a félicité mais moo gënoon may xaañ nit ñu koy aj wala ñu def leneen wala may wax leneen wala leneen mais bi may wax loolu noonu noonu loolu moo nekk si Sénégal moo nekk Guédiawaye ma wax ko. mais waxewu ma ko pour xas ko waxewu ma ko dama ko ne Balla Gaye ku xam fu mu contacté nga wax ma sama première sortie bi li ma la doon wax ne la Balla Gaye bés bi moo bari xanaa feeñ na hmm. si Balla Gaye laa wax ñu may wër hmm. dégg wax bi kooku yàlla moo ko may loolu hmm. mais bu wéree du moroomu mbër mais lii mu wone moo baaxul moo tax ma wone ko mais bis bu ma wonaatee lu baax ma génnaat ci rajo yi bu ma ko taggee ñëpp tam ko maa la wax lii lii day day motiver uh-huh. dooleel parce lii day dooleel kët sax. Mm-hmm. dooleel entraîneur yi dalal suñu xel. Mm-hmm. parce tey jii am na nu muy contacté ñëpp daan waay sa waay daan waay sa waay yi mi de loolu dañ ngay toog par guddi di ko waxtaane tey ji bala mi ngi néegam xamul ruq yi nañ la waxtaane man amaana man supporter laa de mais mun naa xam ruq lañ lañ siy wax boo gisee ma wax loolu ruq yi sonal bala buñ ko daanee day dem këram tëdd man buñ ko daanee duma ma mën a dem sama kër booy dañ ma fay xaar pour waaj a mbalak damay ñëw ñu naa ma mais lës nu combat bi mujje baala du ko fekke man sama xaar laay dagg moom day ndekki kërëb man du ma ndekki bu may seetaani parce que dama kaa xobe yow baala mooy tëgg 5000 francs mus nga kaa gis si mbër géttu béy 5000 francs waxal keroog li ma ko mobiliser si ay supporters moom baala bu si xoolee sax xam ne dirwin bi waa Guédiawaye gépp fees nañ fa dell kon moom moo ñu ñamal lu neex waruñoo woon ñamalaat lu naqari te dëkk si bu doon desee dëkkul sax nga ne fët la mais réel réelaat borom a ko tay ah réel réelaat réelati borom a ko tay waaw du ñàkk xam bëgg lekk la moo tax ñu ne ko baal lekk gii dama lekk lekk gi nga doon lekk ndax gars yi kontaan ndax Balla li ko fi dese bëriwut bu ma juumut li ko fi dese bëriwut mais bu ko assuré sax ba benn defet bii rek doon defetam lool dañuy neex palmarès bu neex mais ñoo gi ñëwaat ci école bi dafa entraîné waat lan la ko mën a yokk moom ci boppam. laay lu bëri la koy yokk parce que da koy dooleel tey mun na jàppee noo xamante xam ne non Balla temps yi mi ngi si de tey bu si nekkul gars ne na ko Balla yokkal xol bi wala yokkal physique ñu ne maa yow xam ku koy soññ yow fii waxe ban booy ñu sonal moo tax muy dem di na nëbutu boo wérul da ngay nëbutu mais boo wéree da ngay génn de wala gisoo loolu yow mi ngi bëgg a wéree kii yàlla na wér ak jàmm nag. ba Sénégal xam ni man bañuma ko. lii laa bëggoon. mu mel ne li ñu wax naan boo xamul fa nga jëm dangay ngay dellu fa nga jóge woon. merci le olof naan boo xamul fa nga jëm. Mhm. da dellu fa nga jóge woon. kii Balla Gaye mosoo ko gis mu bëre rek teel a ñëwaat école waxal ba làmb sosoo ba léegi mi ngi may dégg mosoo koo gis mu teel a ñëwaat samp ni kon wax ji daanaka faj la man waxewu ma ko pour woon pour xas ko parce que moom moo ko ba kay xas ku ding la si boppam am fulla bu doon benn bégal sax bégal na ma ko man munu ma xas tama nag tey bu subaa ma ma def ko leneen àdduna jaraluma ko mais gis dëgg ne kenn du ko wax fu ma fu ma man même bu ma doon ànd moom sax di ko fen war naa wax bàyyil sa feni du dëgg kon bu may ànd ak moom di ko wax dëgg damaa war a confiance mais amul ay booy bi dëkkul piki nag yow foo ma seet see fii géejawaay du fii du géejawaay waaw moom nee na pikin laa dëkk dañ la wax loolu lu garaaw loolu moom mais est-ce que tey parce que muy préparé ay combat tamit. ko uh-huh. prochain combat mam moo ko euh, Gris Bordeaux la a doon. moo Gris moo Gris après moom soog a bëreeg Boy Niang moog Boy Niang le premier janvier 2023 la. Uh-huh. combat ñaari combat yooyu. par rapport ak li mu dellu ci école beeg yooyu. xam nga xam nga nee naa ko si biir wax bële. sa mm-hmm. Gris laa gëjoon a xam lu leer. Mm-hmm. mais Gris tey lay xam ne Balla Gaye ak Balla Gaye du bokk. moom même Boy Niang mi tey lay xam ne làmb moo wax. Balla ma ngi doon gis ak Balla boobu du bokk. Balla ñaan naa si yàlla buñ ko yóbbuwaatee stade ku ko xool xam ne làmbay waaja est-ce que dégg nga ma parce que mi ngi si yow yaa ko gisal sa bopp mi ngi si te yàlla na ko yàlla dooleel jàppale bëri yëpp ba Géejawaay nekkaat fi ñu nekkoon parce que bëri foo agréé la mbëru Pikine bu defee jaloore bu yoboo waa Géejawaay gépp mere ma dama koy wax waaw pourquoi yow ngay am équipe tene ne équipe bi diisul ah équipe bu bu diisee dangay wax ne équipe bi dafa diis bu attaque baaxee da naan kii attaque bi moo diis. bu ko defee ñu xam fan la ñuy faj mais équipe bi kay téye naan ay non kii du mbër du mbër ngay bëree moom wala du ma ko wax di tudd bësam wala booy su ma ko waxee sax day am bës man yow yàlla moo may bës moo la may li nga yor yow benn borom bopp bee fi mooy may ku ne mais wax bu bu feebaree sax nopp yi koy dégg war naa mën a wér mais boo xoolee làmb sax xam ne li may wax nii lu ma xam la barki Seydina Mohamed bu doon ku yàgg si làmb ami béjjën wala ku dagg bee condamné la. bu ma tajee sama condamné wóor na yàlla gaa yëpp may topp waaw bu doon ko xam bëre taab sama sama ordonnance dama koy ket ku ma ko fajal waaye du maa koy faj loolu moom bu yeboo ñu xam ko waaw te yàlla sutura lay def maa ngi ñaanal mbër yëpp ñu am jàmm parce que jàmm si la lépp xaj di ñaanal sénégalais lépp lu ma wax rek te mu juum nga xam ne nit wax lépp mënu ko ne wax mu nangu yàlla rek ko mën waaw leneen loo si nekk rek ngeen baal ma te xam ne àdduna moo demee noonu xoolal damaa nëbbutu ba sonn mais fu ma ne dañ ma fay fekk munu ma bañ a wax parce que ki lay seet si dagg paasam ñëw ba si yow dëkk la micro yow soo waxul danaan booy bi day ñoddi wala lës làmb léegi daa commencé diis moo waral ma late si siti mais late gi late gi mooy bëgg rek Sénégal neex ku ne am jàmm gars yi am jàmm parce que moo yoon waaw non dëgg du rombi nopp am na ñoo xam ne dama leen si mbedd mi ñu nuyu ma félicité ma waaw xamal ma ne ma yaa ngi si góorgóorlu am na si ñoo xam ne dëgg gi lañ ma bëggee am na ñuy bind ne ma musuma woon seetaan làmb mais làmb mi moo tax ma koy seetaan demal si commentaire yi parce que loolu mooy nit mooy indiwaat nit ñi tamit bëre bi bu ñu bëggee mun neex dañuy def grand contre petit xanaa xamoo petit yi ñu ngi xaw a rey yi loolu maa leen ko njëkkoon wax de ne woon naa leen xale ñoom ñoom Tyson ni leen fi ñoom Balla Gaye jëlee woon noonu la booy ñoom Reug Reug ñëwee ak ñoom Sa Thiès xoolal ñoom ñoom Sa Thiès boo yooyu Moussa Ndoye rek bu njëkk maam na fi maam goo xamante ni buñ ko teel woon freiné sa kaw la jëm booy noonu la ñuy génnee brise xoolal boo Jackson géejawaay ñi fi daanu bariwul de mais nu ba c'est que Balla moo doon ko xamante ni bu daanoo géejawaay yëngu waxuma géejawaay de mais Sénégal mooy yëngu kon moom warul foye combat waaw loolu rek dégg la waaw warul foye combat waaw ndaanaan la sax du foye combat mais léegi léegi la brise yi dugg. kon moom war naa xool carte mémoire am xam ne lii temps bii ma ne nii moo waral sama wax yi ñun xamuñu woon parce que day def lu naas rek ñun baay mu jàll te pourtant bu ñu fa nekkee bu xeer jotee dañ koy encaissé de ñun ñooy xeex de ñun ñooy taxaw di sànni xeer ñun ñooy taxaw di def loolu ñun ñoo ñuy sànni ndox ñun la ñuy tëj ñun ñooy dagg biye ñun ñooy yuuxu te kenn du fayeeku waxal na bàyyi xel si loolu. bu mën oto rek boo ko joxee oto nga naan ndax dina mën a dem Touba loolu wax la. Balla bu entraîné day dellu fa mu newoon demal école xool bu defee demi sélectionné bu tuuree da nga naan kii fan la jaan lii fan la ko dencoon ngay wax que affaire bi doo si gëj ay tool sax boo si gëjee boo ñëwee mu booy am déet école boo si gëjee boo ñëwee baa ngi poussière kon bu si compétiré baa ngi set kon bu si nekkee yàlla da koy may xéwal parce que yàlla na ko yàlla dooleel lu nekk si moom mu deñ keneen ku mu nekkit mu deñ mbër yëpp am jàmm Sénégal jëm kanam. mais bu leen gisee ne Leuz day wax rek si ay si teg non non non non ñun suñu koñ lañ bëgg comme ni ngeen bëggee drapeau Guédiawaye noonu lañ bëggee drapeau Guédiawaye ay mbër ngeen leneen la yàlla natoo ñun ay wax waxkat lañ loolu la ñu yàlla natoo mais jàmm rek la ñuy bëgg ni ñaan yàlla di ko wax mbër mu si gis sa bopp it na nga baal ma te xam ne man jëluma décision xas benn mbër wala ma lay wax leneen parce que nit koo joxul reer ñi ma woo ko wax demal tëdd te man joxuma benn mbër reer na ma ñëpp baal damay wax rek. macha allah jaajëf. la jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñu noon si sànqat ak fu ñu waay nekk rek jaajëfal nañ la bu baax paree ñu sant rek gërëm suñu Guédiawaye gépp di leen ñaanal di ñaanal sama mama sama jabar sama doom lépp ñëpp maa leen di ñaanal ñu am jàmm tout sama benn gaan bu ñuy wax sëñ Bay kooku mënu ma kaa fay tudde naa ko doom sama xarit la ba ma dekkee siri ba léegi mosu koo dégg ma wax sëñ Bay parce que nit ñi boo waxee benn tur sax dañ naa làmb day politique man politique yàlla moo ma bind nii yàlla na may mun a xot am jàmm ñëpp Sénégal am jàmm lépp am jàmm Macky yàlla dooleel ko ba Sénégal neex bu jugee keneen ñëw hmm. Sénégal jëm kanam loolu laa mën a xam si lu may wax wasalaam